waa bawal ay yar sangu buur yi fi daa dem làmbaay salaamaaleykum wa rahmatullaahi taala barakaatu ñun mbokku julli yi yéen ñi ànd ñun bi Ahibahil fas yéene indil liggéey nga xam ni sëñ Muntaxa moo ko yëkkati jëm ci université bi te doxoon ndigal mboolem kilifa yëpp ñu soññee ko sëñ Amadou Moxtaar soññ si mboolem ñi mbokk si amoon Moustapha sëñ Moustapha Mohamed soññ si mboolem ñi nga xam ñoo ne si ginnaawam tënku si liggéey bii nga xam ni moo di day Ahibahil Khadim liggéey boobu nañu fas yéene indil jébbale bi ñu doon jébbal sëñ Abdou Rahman xalifa sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma si njiital sëñ Fallou Mbacké Mouhamed sëñ bi joxoon ko ndigal mu ànd ak jëwriñ ji sëñ Xaadim Ngay ak Baye sëñ Diop Maxtaar ak sëñ Moustapha Lo Basiw sëñ Cheikh Ndiaye si ak sëñ teewal fi nag mboolem ñi nga xam ñoo tënk ci confédération de daaya ahibaabu xadim di nusa diini xawim ci mboolem juróomi groupement yëpp sëñ Mouhamadou Lamine Ba ak sëñ Mbacke gi Ngàcc ak sëñ Baara Lo ak sëñ Modou Mbow sëñ Baara Sall te xat jamono at fii waxtu yi toll taxoon ñu oyofal ko noonu ba mbooloo mii fi teew teewaale fi mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci biir liggéey bi loolu lañ fas ñëwee nag fekk nañ sëñ Abdou Rahman ci kër gu mag gi nga xam mooy sëñ si Ahmad Mbacke Gaynde Fatma gi mu ànd fi ak akam sëñ Ousmane ak ay jëwiñam ñu teewee ko gannaaw loolu it biñ fi jugee xam ne si Abdou Rahmane si pësteefu mag bi daa daal di jëlaat liggéey bi yebal leen sëñ Ahmadou Moukhtar ñu ànd sëñ Ousmane ak sëñ Fallou ak délégation bi mu àndal dem jébbal ko sëñ Ahmadou Moukhtar kon loolu la ñu fas indil mu dëppoon ak ajjuma fukki fan ak juróom si maamu koor di tombé le vingt janvier 2021 kon loolu fas yéene indi ci seen site bi di Ahibahil Khadim TV. xarnu beeg ña gëmoon sa baay Moussa Kemi mooy lappatoo mi la Moustapha. sant la gërëm tamit taxawaay ci li nga taxawoo kër gi ak ni nga taxawoon sa mag ju baax ja Serigne Mohamed nga xam ne man maanaam daal dénkoon njaboot yëpp la dénkoon dénkoon boobu nga nga mattali ko def ko ñu ngi ko bëggee woon man man taalibe bi man kontaan ci lool njaboot kontaan ci lool. waa yooyu nag moom nga nekk ba léegi ci taxawu njaboot gi taxawu kër gi waaye taxawatu yoon murid gépp tamit ñu ñaan saa borom subhaanahu yàggal la fi dafa la ndam ci liggéey bi nga liggéey Serigne Cheikh nga ñaanal tamit mbooloo mi ñaanal Serigne Moustapha tamit li nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba di la jàppale ci liggéey boobu tamit mu am ko ni mu ko bëggee ànd ko taalibe yëpp kàddu yi la waxoon naa la ko wax Eh, yokk cant yi ak ngërëm yi daal xam ne moom ab taalibe la man ab jumtukaay la ci li ci man man tool bi ngay liggéeyal Serigne Touba loolu moo ko ci loolu nekk maa may bàyyi kàddu Moustapha Lo rek. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne moo ngi leen siyaare bu baax. sa jëwriñ sëñ Touba bi Cheikh Mohamed Mbacké mu wax noonu nan ko jottali kàddu yi. gannaaw bi nu boolee jëriñ ji di sëriñ Mouhamadul Fadal Mbakke ak ñii mënu booleel nu ànd war a teew ci kanam di sëriñ Xaadim Gay moom sëriñ Moustapha Gay ak bay sëriñ Diop Maxtaar ak sëriñ Moustapha Dia ak sëriñ Cheikh Ndiaye Sikkim mu wax ne nag teewaale leen fi ñëpp ndax li eh, jamono da koo laajut waaye fenn fu nekk am na fa jëwriñ yoo xam ne Eh, bu soññee nan ko daa defee ak lan koy dee defee jëwriñ yooyee teew waaye moom na li wut bu kenn teewoon it mel na na ñëpp loolu moo tax nun ñuy féete ci wetu Touba gi rek mu woon ne nu nag suñ fallu ñëw teewal ko ci teewaaleel tam mbooleem ñooñu ñëpp nag ci turu bay sëriñ Mbacke gi ngàcc mi nga xam ne moo jiite Cheikh sépp ak sëriñ Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne moo jiite mboolem liggéey bii ñu liggéey di Ahibahil Khadim li nusrati Khadim gépp ci biir réew mi ak ci bitim réew sëriñ bi nag nee na kàddu yu gàtt la la ci jiitu mooy nee na sikkuwut ne mi ngi ñaan sunu boroom nga yàgg fi waaw ku la safoo la ku la bëgg la ku la denc ci xolam la te loolu it lu bëgg sa borom defal ko walla la te nun taalib it bëgg nañ ko ko mooy nga yàgg fi lool ba ñi nga fi nekkal Cheikh Ahmadou mbakki ak gaa yu baax ya tawfeex ji leen sa borom defal mu defal mu defal la ju ko ëpp ndax yàlla mën na ko te ñoom it foofee ñu ne looloo leen gënal looloo leen gënal xam ne lan fi bàyyi woon bis bu mi ngi yokk mooy seen mbégte kon neen mi ngi ñaan sa defal la ko may la ak wér yàggal ci sunu kanam euh, nee na nag ñaari kàddu rekk la genn genn gi ci jiitu nee na mi ngi lay xamal bu baax sa diggan digganteem ak sa jëmmu tedd ji pas-pasam ci yow ak yéeneem ci yow ak ko laxasaayam ngir ànd ak yow lëggéeyu sëñ Tuubaa bi loola nag nee na mi ngi ko tënk rek ci li sëñ Tuubaa waxoon ci bayit wu ne ca ca xaqan malaktu rabbi maaliki kulliyati xaali lahu ka amali wa niyati suñ tubaab daa wax suñu borom foofu ne daa wax foofu ne sama lépp kulliyati mooy sama lépp rek lu ma am rek loo xam dañ ma koy askanale rek ak fi ma yàlla tolloole mooy xaali fi ma yàlla tolloole ba ma ganee a ëdd ba fi ma yoxee yow ak ba ba day tukki fu ma yàlla tolloole ak lépp lu ma jëf ak saa yéene loolu suñ loolu suñ Tuubaa jaayante ma Moussa nag nee na loolu itam mu ngi koy doxale sa digganteeg moom ku lijjatiyam rek léppam nee na daal sa bëgg rek la bëgg a xam waaye lépp lu xam ne sag bëgg sallaahu bu ko yëgee loolu dana ko def ak képp ku mu àndal nee nee na kon lii mi ngi ko teg ci sa ci loolu foo loolu la doxale sa diggante ak moom tey ñaan mu yàgg lool <clears throat> beneen bi ci des mooy donga yi taalib yi nga xam ne amuñu lu dul moom neen na mi ngi leen di sakkul ci barabu tedd bii ak sa jëmm ji ginnaaw bu ginnaaw boo xamee li muy sàkkul taalibe bi yooyu mi ngi koy sàkkul kuy wax ashadu an laa ilaaha illallah waaye nag ak jagle ak xaas daa mënut ñàkk ndax nee na taalibe yi kat yore nañ ko yaari yoo xam ne jox nañ ko ba jeexaluñ jeexal ba deseluñ ci dara mooy cofeel gu wér ak nangu gu wér ñu mu àndal liggéey bi joxeel nañ ko cofeel gu wir ak nangu gu wér ba lépp loo xam ne santaane na ko nam ko bëggee lañ koy defee wala nu kawe njortam kon nag nee na lam cay wax mooy moom it la sëñ waxoon rek waq di xawaa ijal lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraam képp koo xam ne mi nga sax ci di ma liggéeyal nga xam lu ma ko digal mu def ko lu ma ko digal mu def ko kooku la ma bëgg ci yow sun borom ci yore sallallahu alayhi mooy ñoom ñëpp na seen aaju faju sëñ bi nag nee moom aaju ju faju moom neena na ngërëmal sëñ Tuubaa rek la ci si mooy aaju ju faju ndax ku am ngërëmal sëñ am nga lépp ndax sëñ bay jaxte nee ci ngërëmal sëñ Tuubaa bis boo amee ngërëmam am yàlla am sa mébét am barke am bépp nit am lépp falu yow loolu mooy ngërëmal sëñ Tuubaa kon nag Cheikh Moussa neen loolu lay sàkkul bopp di ko sàkkul képp ku mu àndal nee na nag addi ji sa fës na yéene ci jataay bi takkaat nañu ko laxasaay ba ba nga naan jaajëf rek waaw dañuy def lu ñëw ñu ñëw rek waaye waaye waaye la fii bu ñu jógee fii rek takkaat nañ laxasaay gi rek waaw nee na nag mi ngi toll ci soixante-quinze million trois cent vingt-cinq mille waaw juróom-ñaar fukki millions ak juróom ak juróom benn fukki junni ak juróom loolu mooy mooy mooy mooy addiye ji waaw jërë gi jox Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ke Mouhamad sëriñ Abdou nee na mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di jottali ay cantam ak i ngërëmam di leen yóbbante itam ab nuyoo ca sëriñ Moustapha Mouhamad di wax ni kàddu yi du jar muy gudd ndax cant rekk lay doon akuk ñaan cant gi mooy sëriñ Moustapha mii di jëwriñu sëriñ Mbàkke Muhammad digganteem ak moom jiitu na jataay bi te lépp rafet na seen diggante ba bi muy agsi fii ni ko jàppe ak fi ko teg ci xolam ak lim ko yéene loolu bis bi set mu jëf lu ko firndeel ci seen diggante Eh, loolu mi ngi koy sant bu baax a baax muy cër bii nga xamante ne nii moom la ko jox ak wàccuwaay bii nga xamante ne ni moom lañ joxoñ nit ñi waxtu ci nekk ci jëmmam eh, loolu mi ko ciy sant bu baax a baax di ko gërëm nangu gi mu nangoo jëf itam mi ngi ko ciy sant bu baax di sant itam mboolem ñi nga xamante ni nii ñoo bootu ci gannaawam mi ngi leen di sant yéen it bu baax a baax. ci taxawaay yi ak nangul gi ngeen ko nangul ci taxawaay yi nga xamante ni nii suñ ci maasee sëñ mu Moussa mii borom kër gi dana amuk bëggam waaye wax ji daal mu gudd mu gàtt mooy ngeen jottalil ko ak cant ci sëñ Moussa te ni ko it borom ñaan la ko ameel te fas na yéene incha allah du booy ñu ngi leen di koy ñaanal sunu borom taxawoo ko sunu borom may ko kàttan ba ko mag ñi bàyyee moo di ko sàmm yàlla bu ci dara suut wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bi nga xamee ne nag ci leen bàyyikoo ci sëriñ Abdourahman Mbacké ci la lañu yebal fii ci kër sëriñ Ahmadul Makhtar Mbacké xalifatu Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir ku ko liggéeyu boobu nga xam ne moom la ko sëriñ Moustapha Mouhamed Mbacké jébal bi nu agsee nag eh, fekk nañ fi sëriñ bi mu dalal nu eh, nu ànd ak sëriñ Ousmane Mbacké ak mboolem ñi mu booleel ñëpp eh, sunu borom nag dafa dogal. nu am foofa problème son euh, jafe-jafe waaye nag ki nga xam ne mooy sëñ Abdourahmane kaddu yi nga xam ne moom la doon jottali sëriñ Ahmadou Makhtar daal mooy kaddu jaayante kaddu laxasaay kaddu ñaanal ko euh, won ko it nekkoon nanga nu ñaanal la sëriñ Moussa Mouhamed Mbacké mi ak ñim àndal ñëpp ci liggéey bi ndax jëf ji jëf jum yéem la jëf la ju kawe joo xam ne yéemi na ci moom ak ay ñaan yoo xam ne ñaanal nañ ko sëñ Ahmadou Makhtar mu yàgg ci kanamu njaboot gu mu yàgg ci gannaawam sëñ Ahmadou Makhtar it ba mu jëlee kaddu kaddu gu gàtt la waaye rek mu jëmale ay ñaan ci sëriñ Abdourahmane Mbacké ak ay cant yu wër jëmale ko tam ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo ne ci gannaaw sëriñ Abdourahmane Mbacké yëpp gannaaw ba itam mu jëmale ay ñaan ak ay cant ci kii di sëriñ Moussa Mohamed Mbacké ci liggéey bu yéeme bi nga xam ne indi na ko jaare ko ci jëwriñu jooju di sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacké ñaanal na ko it ñaan gu kawe bokk na ci la sëriñ Ahmadou Mokhtar wax it nee na sant na sëriñ Moussa lool ndax gis na jëf ji ma mustu noppi di ko def te saa bu ñëwee rek eh, àgg foo xam ne dana ko yéem lool dana kawe jort lool loolu nag nee na mi ngi ñaan mu yàgg ci barkeb sëñ Tuubaa barke sëñ Ruumu Musaa nee na mi ngi bi yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ak képp koo xam ne yàgg Cheikh Moussa Mouhine Mbacké yéen a ànd liggéey bii suñu borom boole nu taxaw saahiran wa baatinan le fakkaram góor ñaa jigéen ñaa nga fay baaw dégg yàllaaw yàlla nañ ko bay diine juy sax far di law ba dajal